waaw euh, tey bis bu diis bu tiis bu métti ci ñun témoignage bi day xaw a jafe ndax circonstance la mooy yàlla li nga xam mm-hmm. fi ko xam daf jege trop sore woon ci man ndax euh, Mamadou Boun man euh, ba mu koy xam booba Macky mooy premier ministre mu nekk directeur cabinet bi ba muy nekk ministre en 2006 mooy directeur cabinet Macky Sall premier ministre suma dem bureau Macky Sall sama premier ministre man en tant que ministre jaaruma bureau directeur cabinet Mahammed Boun Abdallah Dionne ñuy waxtaan di waxtaan ba Macky oolu ma mën ngaa ba biñ jógee ci gouvernement bi ma ne Macky Sall le même jour lañ dem assemblée nationale le même jour ñu ànd ak moom assemblée mu continuer nekk directeur cabinet Macky Sall kon maag gun dañuy yàgg man moom Macky Sall muy xaritoo bu wóor nag mu fonkoon ma nag ba temps yi passé fu ma gis day saan buñ daje rek réunion Benno Bokk Yaakaar nu may ooyee le sauveur de la République fu ñu gisee rek ma ne ma le sauveur de la république ay eh, bu tool yow mais bu loolu mu nekk loo xam ni li tax mu neex moom muy wax loolu day dëgg koo xam ne ñu bëri ñemewuñ koo wax muy dëgg xam ne am nañu ko ñemee wax mais nañ koo wax muy dëgg koo xam ne kenn mënu koo weddi ndax bi mu tàngee ba tàng Sénégal maa fi taxaw jalloo ngi doon taal ak di yàq lii dëggoon te ñoom mu tàng jër bañ taal sama kër loolu yëpp Sénégal moom ko jarol waaye Sénégal ni mel ni mu bindoo la bindoo rek am na ñoo xam ne dañuy tëj seen i bët ñu nangoo dégg dara duñu nangoo gis dara ah lépp loo jëf di ko gis. moom nag mu yàlla mayoon ko mu ràññee xàmmee et am générosité politique am xol bu bay nangu nangul nit ki li mu liggéey li mu liggéey réew si néew nañu ñemee ne El Hadj Diouf moo fi def lii moo fi def lii moo liggéey lii ndax dañoo far wala dañu iñaan wala moom mi nekk nit dëgg fu ma gis ne le sauveur de la république barke alxuraan kooku nag bu demee man am na lu rëy lu jóge ci man ndax gis ku ñemee dëgg ni moom am xol bu rafet nangu valeur ak courage nawleem ak mérite nawleem bëreetul Sénégal ndax par parloo bi far bi moo ëpp ba objectivité ak courage nit ñi dañ ko rafle daal ñeme wax dëgg ngoru wax dëgg mbaax nangu sa mbaaxu nawle dafa jafe Sénégal léegi moo tax ma ñàkk naa partenaire ku bëri xam-xam am ñeme dëgg ñaane ñaanewu ko wax ñaanewul wax li mu xalaat ah bu Abdoulaye yàlla ko yàlla xare àjjana liñ ko ñaanal yàlla ko yàlla teeru def fi ndax ndax euh, loolu mérité lu nekk euh, benn qualité bu raar Sénégal léegi nit ku raar moo ñu ñeme dëgg am xam-xam ah ci am yërmande ci am générosité mën a nangul ku ne sa ku nang ku ne mu nangul la li la yàlla may ak li nga doon ak li nga jëf ci sa biir réew ñu Sénégal lañu am yàlla na Sénégal jëm kanam ñu koy jaar Sénégal yëpp ñu koy foofu tëdd moom lool yàlla tere ko firdaw si njaboot gi yàlla teg seen loxo na jaare Cheikh John xaritam rakkam di sama xarit rakkam di sama xarit bu wóor ñu nekk noonu assemblée nationale di fa liggéey liggéey bu rëy muy Cheikh Diop Dione frère Mahamad Boun Abdallah Dione di di jaar famille bi yëpp jaar Sénégal jërëjëf. merci. bis bu dis la bu tiis bu métti ci ñun bi day xaw a jafe ndax circonstance la mooy yàlla li xam ne subhaanahu wa taala dara fi ko xam daf ñu jege woon trop sore woon ci man ndax Mamadou Boun man euh, ba koy xam booba Macky mooy premier ministre mu nekk directeur cabinet ba bi may nekk ministre en 2006 mooy directeur cabinet Macky Sall premier ministre masuma dem bureau Macky Sall sama premier ministre man en tant que ministre jaaruma bureau directeur cabinet Mohamed Boun Abdallah Dionne ñuy waxtaan di waxtaan ba Macky olo ba ne ma mën ngaa egsi ba biñ jógee ci gouvernement bi ma ne Macky Sall le même jour lañ dem assemblée nationale le même jour ñu ànd ak moom assemblée mu continuer nekk directeur cabinet Macky Sall maag bu dañuy yàgg man moom Macky Sall muy xaritoo bu wóor nag mu fonkoon ma nag ba temps yi passé fu ma gis ndeysaan bu ñu dajee rek réunion Benno Bokk Yaakaar yi nu may ooyee le sauveur de la république fu ñu gisee rek ma ne ma la république eh, loolu mu nekk loo xam ne li tax mu neex moom muy wax loolu day dëgg ko xam ne ñu bëri ñemewuñ koo wax muy dëgg boo xam ne am nañu ko ñemee wax ne ñaane nañ koo wax muy dëgg boo xam ne kenn mënu koo weddi ndax bi mu tàngee ba tàng Sénégal maa fi taxaw jàlloo ngi doon taal ak di yàq lii dëggoon tey ñoom mu tàng jër bañ taal sama kër loolu yëpp Sénégal moo ko jarul waaye Sénégal ni mel ni mu bindoo la bindoo am na ñoo xam ne dañuy tëj seen yi bët duñu nangoo dégg dara duñu nangoo gis dara ah lépp loo jëf di ko gis moom nag mu yàlla mayoon ko mu ràññee xàmmee et puis am générosité politique am xol bu rafet bay nangu nit ki li mu liggéey li mu liggéey réew ci néew nañu ñemee ne El Hadj moo fi def lii moo fi def lii moo liggéey lii ndax dañoo far wala dañoo iñaan wala dañoo naafeq moom ni nekk nit a dëgg fu ma gis ne le sauveur de la république barke alxuraan kooku nag bu demee man am na lu rëy lu jóge ci man ndax gis ku ñemee dëgg ni moom am xol bu rafet nangu valeur ak courage nawleem ak mérite nawleem bëreetul Sénégal ndax par parloo bi far bi moo ëpp ba objectivité ak courage nit ñi dañ ko rafle daal ñeme wax dëgg ngoru wax dëgg mbaax nangu sa mbaaxu nawle dafa jafe Sénégal léegi moo tax ma ñàkk naa partenaire ku bëri xam-xam am fit ñeme dëgg ñaane ñaanewu koo wax ñaanewul wax li mu xalaat ah bun Ablaye yàlla ko yàlla xare àjjana lañ koy ñaanal yàlla ko yàlla teeru ca fi ndaws ndax euh, loolu mérité lu nekk euh, benn qualité bu rare Sénégal léegi nit ku rare moo ñeme dëgg am xam-xam ah ci am yërmande ci am générosité mën a nangul ku ne sa valeur ku nang ku ne mu nangul la li la yàlla may ak li nga doon ak li nga jëf ci sa biir réew ñu Sénégal la ñu am yàlla na Sénégal jëm kanam ñu koy jaar Sénégal yëpp ñu koy ñaanal fa ci moom lool yàlla teere ko firdaw si njaboot gi yàlla teg seen loxo na jaare Cheikh Diop John xaritam rakkam bi sama xarit rakkam bi sama xarit bu wóor ñu nekk doon assemblée national di fa liggéey liggéey bu rëy muy Cheikh Diop John frère Mahamad Boun Abdallah Dionne di jaar famille yëpp jaar Sénégal jërëjëf merci